يشاء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين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 <clears throat> wa kaana dhaalika inda llaahi fawzan aziimaa sadaqa llaahu l-aziim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammad <clears throat> wa ala alihi wa sahbi sawi ridwan wa tamkin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokki jullit yu tedd yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu <clears throat> ci turu sunu kilifa muy Cheikh Mouhamadul Moutada Mbacké Amar <clears throat> muy ndigal lum nu jox ñu koy wax ci turu mbooleem kër sëñ Mor Faarima ak i njabootam ñi nu mag ak ñi nga xam ne ñoo leen mag di leen xamal ni waxtu bi dafa guddi sëñ bi lim la waxoon lépp ñu wax ko du fi xaj waaye nag fi mu koy tàmbalee mooy nuyu sëñ Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride nuyu mbooleem njabootu sëñ Touba gi nga xam ne ci subaak léegi ñu ngi ñëw ak dem ka ca gën a mag ba ca ka ca gën a ndaw nuyu mbooleem kilifay diine yu jóge ci yeneen tarixa yi nuyu kilifay étatique yi ak kilifay politique yi nuyu suñu bokki boppi yi nuyu mbooleem kóllëre yi nuyu taalibe yi ak dëkkandoo yi sëñ bi li waxoon ma wax ko nag mooy bis bii nii mu mel doy na waar ndax jamono ji xat-xat yi ci nekk ak jafe-jafe yi ci nekk kuy woote sax dangay xalaat ndax nit ñi daanu mën a ñëw ndax nit ñi daanu ñemee ñëw ndax yitte yi bari na yoon yi xat na jafe-jafe yi bari na waaye loolu day mbokk yi mel na nit feeñul ci bis bi ndax fii na li fi ñëw ci suba ak léegi ak li fi toog yaakaar naa ni musta am màggal gu mel ba boog goo xam ne moo ëpp gi bariwul lu muy am kon nag sëriñ bi nee na yëg na loolu lépp yëg na kilifay diine yi yëg na kilifay étatique yi yëg na kilifay politique yi yëg na mbokki boppam yi ndax kat sëriñ maam moo dafa am wax bu mu wax bu doy waar suba dani nit bu nee moo baax ay bokk ma ko wax waaye nee na wax bu yàqu la nit bu nee moo baax dañ naan ay bokkam yu baax ñoo ko wax ndax baaxu nit ku koy wax baax nga waaye nit tam bu nee bu wootee ci ay bokkam teew bokk yooyu yu baax la ndax ku teewul tam kat kenn du la mën a sikk kon sëriñ bi nee na xolam sedd na kontaan na ci dajaloo gi ñu fi dajalo ndax bis bi kat ak nu man di demee rek nee na li saxoon ñu sos ko mooy jokkuk bokk tudd yàlla saafonte ak lijjantikoo ci suñu bopp ndax àdduna dañ naan amul solo waaye lu am solo ndax lu lijjantiku fii la lijjantikoo lijjantiku nag daa am ay yoon yoon yooyee nag ci ngay mën a jaar ba lijjantiku kon sëriñ bi nee na mbooleem ko fi teew amul sa pay mu ngi leen di booleeg sëriñ Tuubaa mi nga xam moom la ay maamam toppoon ay maamam ñëwoon fii di tisaare diine jóge a Munawwara ñoom tam nee na mi ngi sant yàlla ci loolu ndax ay maamam yi fi ñëwoon rëy mënoon na leen jàpp wala ñu gis seen bopp kon ba léegi ni ñu ngi beru di def leneen waaye tisaar diine ba ñëw fekk cim réew ña fa juddoo nga gis fa ñoo xam ne def nañ ci lu diin lu def nañ ci lu diine loo xam ne kenn defu ko nga dem ànd ak ñoom loolu fi la mbaax kon sëriñ bi ne mi ngi sant maamam yooyu di sant kilifa yi nga xam ne nag ñoo jiite àdduna bi. tàmbalee ko ci Cheikh Ahmad Bamba ak yeneen kilifay diine yi nga xam ni kenn ku ne bay na sawaar ci réew mi kon daal loolu mooy li nga xam ni moo sosoon bis bi muy jàng alxuraan jokk bu bopp tudd yàlla waxante lu baax lijjanti ko ci suñu bopp sëriñ bi nag neen loolu am na ci bis bi sant na yàlla sant na yonent bi sant na Cheikh Ahmad Bamba sant na mbooleem kilifay diine yi nga xam ni def nañ seen kéem kàttan ba diine ji taxaw nii kon ci gàttal ma koy tënku noonu rek sant na bu baax mu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñoo ngi lay siyaar siyaar bi gën a tedd gannaaw ba ñu la siyaaree ñu ngi siyaar monsieur le ministre Yankhoba Diattara monsieur le directeur de cabinet adjoint du président bi mu àndal ak délégation bi mu àndal yépp honorable député Ndango Seck kilifa diine yi imaam yi ñu tedd ñi ñu fekk yépp ci jotaay bi boo ma joxee kàddu ci turu diaspora dinaa ci sant parce que jaspora day lu am solo ci réew mi li jaspora di dugal ci koppar ci réew mi mel na ni moo ëpp li ñu tubaab yi di dimbale ñun Sénégal ak ñun Afrique nga jox ma kàddu ci diaspora may nuyu sëñ Fallou Samb ma jiite fondation Cheikh Amadou Bamba ca Amérique ak Canada mi nga xam ni kuréel boobu nga xam ni ca bokk te ñu ànd at mu jot ca nganu Cheikhul Khadim gu màgg gu tedd ga te diggante New York Atlanta ak réew yépp ak état yi nga xam ni ñoo seq googe ngan li ma bëgg nag seede fii mooy sëñ Murtada Amar mii saa bu ñu fekkee bitim réew saa bu ñëwee bitim réew fekk ñu fa du ñu digal lu dul ñu liggéey du ñu digal lu dul ñu jub du ñu digal lu dul ñu fonk suñuy doom mooy dugal leen alxuraan mooy tàggat lañ ci lislaam ki fi njëkk a tàbbi te yëkkati fi kàddu ku ne dégg na alxuraanam sëñ Murtada Amar saa ñëwee Amérique li nga xam ni moom la seq ak mooy yéen ñu ne Amérique yéen ñu ne ci diaspora bi fexe leen ba seeni doom bu ñu juddoo bu ñu màggee doon gañuy doon américain wala italien bu mu tax ñu réere sallallahu alayhi wa sallam bu mu tax ñu réere seen diine bon nag sëñ Murtala sama xol sedd na ci fekk gi ma la fekk fii tey ci gàddiyal fekk gi ma la fekk ci say biir mbokk ngir mën a seedeel say mbokk ànd bi nga ànd ak donc waay diaspora ci l'islam ci kilifteefu kan kilifteefu sëñ Mamoor Mbàkke Murtada bon nag ci turu Fallou Samb bu Foncab ci turu ñoom sëñ Moustapha Diop ci turu ñoom Cheikh Mbacke Thioune ci turu mbokki waa Amérique yëpp ñu ngi lay jottali seen nuyoo di la xamal ni bu ñu ko mënoon ñoom ñëpp sëñ bi ñoo fiy teew waaye nag mënumaa wax ci diaspora te waxuma ci nag ki nga xam ni mooy président Macky Sall xam naa seen yanqoo ba bu jëlee kàddu dana ci wax parce que bu weesoo diaspora bi ma doon man maa jiite lépp luy foire ak exportation ci Sénégal li ma ci bëgg a wax rek mooy ñu xam ni man de li ma mën a seede ci président mooy ba may ànd ak moom boobu du président boobu du premier ministre boobu du ministre li may mën a seede ci moom mooy Sénégal rek ko ko jox ku gis barki démb teer bii ku gis li nga xam ni moom la def ci ndaayaan mooy Dubaay gee nga xam ni ñoom ñoo ñëw tey ndaayaan bëgg ñoo ubbil ay usine bëgg ñoo defali tawféex ñu xam ni kookee kat li ko ñor mooy askan wi gis naa nag seen godoron bi seen Yankhoba Diattara dinaa la yóbbante waaye man i tamit danaa def sama wàll godoron bi kat ñëw fii ci dëkk bi métti na te loolu nag dañ cee war a taxaw ba gàmmu gii di ñëw ñu fexe ba tali bi ñuy kuk ku fi ñëw mën a jox ci tali bu ñuul te loolu kenn mënu ko kenn mënu koo def ku dul gouvernement bon nag maa ngi lay ñaan di ko ñaan directeur de cabinet adjoint dinaa ci béy sama waar man mii sëñ Murtada parce que yelloo nga lu mel noonu sa taxawaay ci lislaam sa taxawaay ci Sénégal yelloo nga sa goudron bi ñuul kuk yelloo nga li dëkk yi Sénégal yëpp di am ñu def ko fii ci sa dëkk bi lii daal mooy engagement boo xam ni jël naa ko sama digganteeg yow di ñaan ministre bi ñun ñëpp ñu àndandoo te xam ni wax yi wax nag dañ koo war a topp mu bañ a doon waxi élection bañ a doon waxi politique man te sëñ boo ma joxuloon kàddu ci mbiru diaspora ak mbiru taalibe wóor na yàlla du ma jël kàddu ku may àndal yàlla tax may ànd ak yow président bu defee lu dul yoon wala mu taxaw taxaw boo xam ne du yoon. bokk naa ci ñuy taxaw wax ko ni lii àdduma ci bon nag ñu xam ni réew mii jàmm moo am solo sëñ Tuubaa ñaan na ci dëkk bi wallaahu yansuruni wal xalqu tatbaxuni fil bahri wal bahri za nafin bila dararin xéwal yaa ngi ñëw jóge fu ne te fan lañ jëm si fii ci Sénégal loolu nag moo koy lal mooy jàmm nango sekk gi nii bokkuñu bokkuñu jublu waaye sama doomu ndey la jëmu ju baax jëmm ju sëriñ Tuubaa ñor te ndaxam feneen la féete loolu mooy Sénégal mooy nañu fàtte suñu bopp jiital réew mi jiital askan wi jiital jigéen ñi yërëm jigéen ñi yërëm ndaw ñi te ñun ñi nga xam ne ñoo yor doom tànk ñu wàcc suñu bopp ubbi suñuy téléphone faj aajo jaam yi parce que loolu moo tax ñu teg ñu fi ñu teg sëñ Mourtala di rek laa bëggoon a wax di tuub di jéggalu di la bëggee sa gàmmu gi fas yéene at mu jot moo fekkee Sénégal moo ñëw ma ak sama njaboot ma ak sëñ Bassirou Amath ñoo ànd ak sama doom doom ak Mama Kane maa ngi lay ziar asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi yéen mbokku taalibe mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ndigal dafa jóge ci sëriñ Mourtada Amar jëm ci jëwriñ ju ñuy wax Alaaji Gumba Seen te ndigal bu jógee jëm ci barab fa mu jëm dañ ko ko war a jottilil xam naa moom mënuñoo wax sax li mu bëgg a wax lépp ndax tuuti nañ ci di wax ci ay kàddoom waaye ñu wax rekk lu ñu ci man sëriñ bi maa ngi wax ci suñu ndigalal baay di alaaji gumba seen di jëwriñ waaye nag sëriñ bi maa ngi lay xamal ni la maa ngi ànd ak samay kilifa ñu nekk fii ci sama ginnaaw nekk ci sa ginnaaw nekk fii aussi ci suñu kanam di ci jiital sama xalifa baay du sama xalifa baay sax sama taawu baay di Abdou Samb mu nekk fii ci ginnaaw ànd ak Gumba Ndiaye ak mbokk taalibe yi sëriñ bi neena mi ngi sant mboolem daayira yi sëriñ bi nga xamante ne ni moo yëkkati léegi kàddu yi sant na waa diaspora yi te daayira yi ci bokk waaye nag ñun ñii nga xamante ni dañoo féete ci ndakaaru ak lu ko wër danañ sant mbokk taalibe yi nga xamante ne nii ñoom lañu bokkal bis bii sëriñ bii ab sëriñ buñ ko dee wax ay taalibe tax te taalibe yi day ñi ngi am mbégte ci yow lool saa yu ñu xëyee rek di gën a bég ci yow moo tax saa yoo wëlbatikoo rek gis leen waaye nag sëriñ bi nee na yéen mbokk taalibe yi mi ngi leen di sant bu baax daayira yi nga xamante ne ni ñoo nekk fii ci Gadeyelle ak daayira yi nga xamante ni ñoo nekk Ngaay Mexe ba àgg Touba agg Pekes ba jëm ci Ndakaaru ga ñu jóge mënuñoo lim daayira yépp ndax bu ñu ko doon lim duñu fi jóge waaye sëriñ bi nee na moom gis na seen liggéey dara manqué nee na mi ngi leen di sant bu baax ku ko ci gisul ak ku ko ci gisul yépp sëriñ bi nee na gis na ni moom xëy na ñépp mënuñoo saafante waaye ay xol ñooy gisee te moom yëg nañu li ngeen def ndax mboolem lu fi nit def rek fekk si na ko fi sëriñ bi nee na xéewal yi nekk ci biir kër yi yegsiwul ci moom sax yëg na ko ndax lépp lu mu santoon waa dëkk bi nee na waa dëkk bi defal nañ ko ko mboolem ku fi ñëw tey ci bis bi foo mën a jógee rek ñekk fii ci dëkk bi waa dëkk bi teral nañ la génn nañu seen kër yi jox ko gan yi wàcc nañ seen lal yi jox ko gan yi te sëriñ bi nee na loolu rek la bëggoon kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen def ci gàmmu gi waxuma la déwén waaye bu ngeen fa jógee léegi rek yàlla na ngeen gën a man lu yàlla na ngeen def lu gën a man loolu te boo ko ñaanee rek mu am amar jotaay bii ku fi toog tey xamante ne nii ah kenn tuutalu la de ndax tuuti woo mboolem koo yaakaar ci lu jëm ci lu sant Mbàkke Amar képp koo yaakaar ñëw na fii tey suba fekk sere fii kon nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax mu ngi leen di ñaanal di leen ñaanal bu déwénee li ngeen fi def leen bu déwénee yàlla na ngeen def lu ko ëpp fii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa kàddu yu baax yi sëriñ Cheikh yëkkati di ko wax di ko jëmale ci man dafa may fàttali monsieur le ministre li daloon diggante président Abdou juuf ak le président Senghor président Abdou juuf bu mosoon di jël kàddu communicateur traditionnel yi dañ koy defal lu mel ni lii sëñ Cheikh def waaye bu paree dafay jëlaat kàddu mu ne seul son excellence monsieur le président la république gardien de la constitution digne de ses acclamations moo tax ma ne kàddu yu baax ak teraanga yi nga yëkkati di ko jëme ci sama jëmm ju ñàkk solo ji ma abbat baat baat yooyu président Abdou Diouf wax ne teraanga jooju nga wax ci man ci sama mag yu baax yi la nekk ñoom Serigne Xaarim ak Serigne Gumba kon delloo leen ma teraanga yooyu Serigne bi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 ci turu comité d'organisation 64e édition Magalu Gàddiyeen ci ndigalul xalifa bi waaye ci sama ndigalul sama mag ñu baax ñi ndax maa fi gën a doon gone maa fi gën a gàtt àlloo ci ci famille bi may wax ne sëriñ bi bis bi bi nga ko wootee ni ko fi jiitu waxe woon mbokk yépp ñëw nañ kilifa administration bi ñëw muy ay coono yu métti yu nit ñi jànkoonteel ba egsi fii waaye ma wax ne coono yooyu yëpp nag jaroon na ko jaroon na ko ngir barab bi ndax waxoon naa ko daaw dinaa ko leeralaat nee naa sëñ Touba moo joxoñoon sa maam ju baax ja sëriñ bu mbaas ne ko jële ko fee indi ko fii yabal rakam ju baax ja maam Cheikh jox ko ñaan ne ko def fi jàkk te di fi jàmm yàlla joxoñub sëriñ Touba fu mu nekk ñëw fa jànkoonteeg coono wàññiwul dara coono yi metti na waaye jar na ko ndax barab bii di biir kër gi li ko tàmbalee ci cheikh Mouhamadul Moustapha di taawu cheikhul Khadim ba ci soxna May munatu fanaan nañ ci bërëb bii eggoon nañ ci jamono joo nga xam ne ñaari doomi sëñ Touba ñooy dëlaloo noo fii gan ci biir kër gi. cheikh Mouhamadul Mourtada sa turandoo 54 ans mosu ko manqué jataay bu mujj bi daf ne Mourtada Serigne Fallilou ak sëriñ Gumba mbaa di ngeen fonk barab bi ndax cosaan bu rafetee dañ koy fonk jànkoonteeg coono yooyu wàññiwul dara mbaax rek la ak teraanga moo tax ma ne sëriñ bi kilifa yii fi ñëw te ñu àndoon ak ñoom liggéey bi rendre naa compte sa coordonnateur général mu di sëriñ Amar Ben Amar dina ci ñëwaat ci ay remerciements ak ci ay cant yu yaatoo yaatu waaye monsieur le ma wax la ne la dafa am benn nitu l'islam bu baax buñ doon wax Maulana Cheikh Ibrahima Niass wala doomam la bokk. mu waxoon président la république ne ko boo gisee ñëwuñu rek ñëw di wax chaque jour palais de la république xamal ne ndaw yi nga doxale suñu diggante ak yow mu ne ko ndaw yooyu yoo am solo waaye monsieur le ministre ma lay wax ne tàmbalee ko ci monsieur le gouverneur de la région de Thiès tam wàcc ci le préfet de département wàcc ci monsieur le sous-préfet ñoom ñëpp seen taxawaay ak seen yitte ci màggal gi rafet na lépp lu ñu waroon a def ci taxawaay def nañ tàmbalee ko ci CRD ba ci CDD waaye loolu it duñu bett ndax l'ambassadeur protocole Chérif Oumar Diagne daf ma doon wax ne ma nit buñ koy nomee di ko jox fonction bu ñu xoolee compétence yi ba pare nañ xool yar bi ak teggin yi waaye monsieur le ñiy nekk ci région bi tàmbalee ko ci gouverneur am nañ compétence am nañ yar am nañ teggin xarañ nañ matale nañ seen liggéey bu amoon lu ëpp jërëjëf dama koy wax ci turu sëriñ bi waaye jërëjëf moom jërëjëf rek la mën a dox la ca des nag du ma ci sori mooy ñun ñi sëñ bi dénkoon liggéey suñu digganteeg sëriñ bi ma gàttal ko ndax dafa guddi dafa am benn nit boo nga xam ne kilifaam dafa fal woon nekk buur woo ko ba mu ñëw en concertation ne ko ban poste nga bëgg ma jox la ko mu ne ko bëgguma benn poste bi ma bëgg mooy topp ci sa ginnaaw rek loolu rek laa bëgg mu ne ko loolu rek nga bëgg mu ne ko waaw mu ne ko defal naa la mu ne ko kon nag baax na ñu toog diir bu gàtt buur bi fu mu génn rek muy lu rafet mu laaj ko moom lii ñu ne ko waaj yi topp ci sa ginnaaw ko moom mu woolu ko ne ko mbir mi nu mu demee mu ne ko xanaa topp ci sa ginnaaw rek loo rotal ma for ñun sëñ bi nii ñu mel lu dara topp ci sa ginnaaw rek lañ def loo rotal rek ñu for te rotaloo dara nag lu dul mbaax ak yiw ak teraanga ak lislaam ak wayfal sa bopp ak wàcce sa bopp yàlla na nga yàgg woote ñu yàgg laa wuy si wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad nabi lumi wa ala wa sahbihi wa sallama Euh, mbokki jullit yi xarit yi ak kilifa yi nga xam ni yéen a wuyu si daje bu màgg bii di daje lislaam di daje diine di daje ak mbokk ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam te di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla daje bi nga xam ni wax nañ ko fi léegi ñu ngi ci soixante-quatrième édition li ñu wax lu yàgg dëgg la daje bi muy daje boo xam ni wax nañ ko léegi daje mbokk la yàlla dafa def ba mu tàmbalee ba léegi at mu jot day mel ni dafa am lu bees lu ci yokk euh, li ci yokk nag mooy wax nañ ko léegi ci contexte bu jafe bi sëñ Xaadim wax na ko tey jii ku ñëwul ci daje bi kenn du la sikk ndax jamono moo fi toll ci wàll yëpp xam ngeen ni ñu ngi génn ci wala ñu ngi sax ci contexte su pandémie bii nga xam ni moo jaxase àdduna bi yëpp waaye terewul bu bés bii ñëwee nit ñi dootuñu xool comme ni ko sëñ Xaadim waxee léegi. dootuñu xool jafe-jafe yi dootuñu xool jamono fu mu toll ma dañuy xool rek ki woote kan la ñu wuy si ko ki woote kan kan la mooy Cheikh Mouhamad Mourtada Amar mi nga xam ni euh, li ñu wax ku yokkul da nga wàññi te bu ngeen gisee ni ñu jëlee kàddu yi di ko la joxlante ñu jox diw jox diw loolu yëpp màndarga la rek li ñu wax màndargaw générosité euh, yéwén dëgg du ci alal rek mais yéwén ci daraja la mais jël say doom jël say rakk bu xew-xew ñëwee mu mel nii ñëw yaa nga fële ñu ñooy doxal loolu day wane mbaaxam rek mbaax goo xam ni nii nag euh, mbokk yi sëñ Mamoor wax na ko sànq nee na bu buñ ne nit baax na ñu ni ndax mbokk yaa ko wax waaye ñun jàpp nañ day mbokki sëñ Mourtala yu baax lañ kon jàpp nañ ni seere nañ ni sëñ Mourtala ku baax la ndax fépp fu ñu daje fépp foo xam ni nii daje diine la wala woote diine la bu fa teewee teewaayu doxal ak mbokk rek la teewaayu e, feddali mbokk gi waaye teewaayu wane ni fii kat dëkk bii di Gadeyelle nga xam dafa am lu mu symboliser moom cëram mooy na yaatal na bennale mbokk yépp ba tax na du guddi du bëccëg xew-xew bu am fas koo yéenee manqué ndax lan ndax xam ni responsabilité la ci moom mu wuutu ñi mu wuutu muy magam yu baax yi fi jiitu tàmbalee ci sëñ Gumba ba ci sëriñ Fàllu kenn kum ci doon joxoon na la cër boo xam ne nii jàpp nañ lañ ko bàyyee moo tax tey sañul di ci wàññi lenn lu dul xanaa taxaw guddi ak bëccëg di ko yokk kon sëriñ bi ñu ngi lay wax euh, jërëjëf di la wax ni waar wi de yaa ngi koy bay ndax wax nga ko dem bi ñuy wàcce kaamir yi dafa am ñu fi jiitu ñoo xam ne nii bu bés bi mosaan ñëw muy màggal gi ajuma ji dañu fi yendoo jàng alxuraan ba ngoon gi tàkkusaan jot mbokk yépp daje ci waa dëkk bi yépp ak mbokk yi jege daje ci jumaa ji ñu ñaan ñaanal wajur yi ñaanal euh, waa dëkk bi waaye ñaanal képp koo xam ne nii am nga yéene ñëw ci màggal gi di màggal goo xam ne màggalu lislaam la dajeb lislaam la kon sëñ bi jërëjëf ci turu comité bi nga xam ni mooy comité d'organisation wu màggalu Gàddu dañoo baaxoo bu màggal gi ñëwee wala bu jubsee kuréel bi ñuy wax comité d'organisation te sëñ Xaadim sama doom jiite ko dañuy def ay waajtaay waajtaay bi nag mu ngi jëm rek ci yittey dëkk bi yittey waa dëkk bi waaye yittey gox bi yépp ndax liñ fi mobilisé ay service service u état bi seeni action yemul rek ci dëkk bi lañ ci ñëw léegi mooy dañuy liggéey liggéey boo xam ne nii day am impact ci dëkk bi waaye aussi day am impact ci environ dëkk bi loolu nag di loo xam ne nii lu am solo la te sëñ Xaadim yore ko jiite ko noo xam ne nii man de sama doom la maa ngi rafet lu baax li nga xam ni moom la ciy jël ci ay initiative ak moom la ci gàddu ci ay coono nga xam ni lopp noppal nañu ci lu bari ci liggéey boobu di wax mbokk yi ni comité d'organisation boobu nañ ko daan defee rek sëñ xaarim defee na ko noonu muy sëriñ xaadim Murtada euh, lépp loo xam ne ay correspondance la jëm ci état bi jëm ci kilifa yi euh, def na ci waajtaay boo xam ne nii rafet na ñu ko ñaanal yàlla yàlla may ko kattan ak wér ba mu mën a yeggalee ni mu ko yéenee ni ko sëriñ bi bëggee di wax monsieur le ministre nii sëriñ bi mi ngi leen di joyal ay kàddu ngërëmam ci taxawaayu état euh, ndax état kat ñu xam-xam nañ ni mënul lépp yéene la lépp mais mënul lépp ndax état ñëpp a ko bokk ndey ji seex lay tëdde kon njaaxaanaay rek la mën a taxawee waaye terewul bu màggal gi ñëwee day mel ni Euh, service yu état bi ci tamble comme ni ko sëñ Xaadim waxee sous préfet ba yéeg ba ci ministre de l' intérieur ñu yegg ba ci cabinet monsieur le président la république kenn ku ci nekk sa wàll day mel ni mobilisation bi c' est une mobilisation générale sëñ bi nee na monsieur le ministre nga santal ko monsieur le président la république ci taxawaay bi nga xam ni ak yëg gi nga xam ni yëg nag ko moom waaye yëg na ko population yi nga xam ni ñoo nekk ci euh, ñoom la administration bi jiite te muy administration boo xam ni monsieur le ministre sëñ bi nee na mi ngi lay feddali euh, ngërëmam ci ñoom kenn ku ci nekk comme ni ma ko waxee sous-préfet moo ko bañu loo wax sax day mel ni membre la ci kër gi xëy na peut-être am na ay fonctions administratives waaye euh, dootul am benn yitte bu màggal gi jubsee ba kero muy weesu yiteem yépp mooy yan préparatif la ñu war def ak yan euh, yitee la ñu war a taxaw wala lan la dëkk bi soxla ñu def ci lu ñu mën kon sëñ Xaadim wax na ko léegi ñun dañoo nekk foo xam ni position bañ nekkee daanaka moom mooy suñu euh, mooy suñu tànk mooy suñu làmmiñ mooy dox liggéey boo xam ne nii résultat bi ñun ñëpp gisandoo nañ ko ndax gis nañ ni am na ci benn boo xam ne nii moom c'est encore plus visible mooy dëkk bi éclairage bi fi am ñëpp xam nañ ni euh, ay fan ci gannaaw rek amoon na fi jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu ci bari lijjanti nañ ko ba tey jii dëkk bi daanaka mën nañ ni lépp yemb na buñ tàmbalee ci wàllu assainissement ci wàllu hygiène ci wàllu yoon wi ñuy jaar pour ñëw te Moustapha Kane di sama kóllëre ñu nekk ndawoon ma nekk ak magam Fatick mu wax ko léegi tudd ko jafe-jafe yooyu yàgg nañ koo xam mais jafe-jafe yooyu yaakaar naa sëñ bi taxaw na ci taxawaay boo xam ni ren di am nañ ci yaakaar ci li nga xam ni dig nañ ko ko ni incha allah yoon wi moom ñuulal bi nga wax dinañ ko def kon ñu jàpp ni combat boobu ngay wax ni di nga ko mëne day doon rek euh, def ceeg dool yi lay doon waaye noo insisté ci président ba mu gaaw rek day doon loo xam ni njëriñu askan bi yëpp la ndax yoon la woo xam ni kat. impact économique am yemul rek ci desservir diggante gàdd ak jéemul déedéet dafa war a dem ba sagata ba boobaa dañ xam ni day ubbi dëkk bi di koñ bi plutôt di fii ñu toll. kon monsieur le ministre loolu du ab doléance de fàttali la rek parce que monsieur le président la république dans son message wax na ci yoon wi nga xam ni moo jëm euh, ngaay mexe jóge ngaay mexe jëm ba ba Thilmakha te loolu jàpp nañ ni bii rek ab bërëtal la ci boo xam ne nii. mën nañ ko ci yóbbaale te boobaa dina doon loo xam ni lu amal njariñ askan wi lay doon di wax ni kàddu yi sax waroon naa mën a bañ a gudd ndax li ma ci waroon wax yépp suñu doom sëñ Xaadim Mourtala wax na ko ak sëñ Xaadim mi nga xam ne mooy borom dëkk bi ni mu tënkee moom la sëñ di bàyyi ci dëkk bi ni mu tënkee rek waree na ni fii day ñu ngi sant bu baax les services de développement muy ni ma ko waxee léegi ci wàllu électricité bi ba ci wàllu réseau téléphonique yi ñëpp ñu fi ñëw ren jii amuñu jafe-jafe ci woote téléphone wala wuy téléphone wala am internet te loolu yëpp bu màggal gi jubsee dañuy def CLD euh, préfet ñëw fii ñu wax ko suñu suñu yite mu tënk ko ñu daje Tiwaawoon def def CDD mu tënk ko ñu dem euh, CRD te CRD ñëpp xam nañ ni c'est une rencontre officielle ci calendrier euh, religieux bu région de Thiès la Gadeyelle bokk CRD boobu ci la ñuy tënkee te tey jii waa dëkk bi mën nañoo seede ni pompé nañ dëkk bi ci wàllu hygiène waaye itam lépp luy wàllu setal ak yeneen service sécurité yi gendarmerie ñu ngi fi depuis booba léegi kenn amul looy ragal ci dañ sàpp sàcc sama portable wala dinañ am agression wala yu demee noonu. kon wax rek monsieur le ministre xëy na maa ngi guddal mais kàddu yi sëñ bi dafa ma waxoon ni boo ñëwee nga santal ma waa gi. xëy na sax moom ay kàddoom moo gën a matale moo gën a rafet dina ko wax ci anam yoo xam ne nii boobaa dinañ xam ni kat kii euh, mbégte la ci moom te mi ngi sant di gërëm mbokk yi di sant di gërëm euh, xarit yi di sant di gërëm nguur gi tàmbalee ci président la république ba ci mujj di jox yóbbante boobu monsieur le ministre de léconomie économie numérique monsieur ba Diattara ni sëñ bi daal bég na ci taxawaayu nguur gi di yemale foofu suñu kàddu li ci manqué ci man la waaye li ci yéene woon mooy wax lu rafet wax lu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci sama tur ak turu délégation bi ma àndal yëpp ñu lim ko fi sànq ñu ngi lay indil nuyu ak ziaru son excellence monsieur le président de la république son excellence Macky président de la république moo ñu fi yabal sëriñ bi mu ni suñu ñëwee ñu indil la nuyoom ak ziara mais également ñu indil la mun naa ni ndokkale ci gàmmu gi nga xam ni yaa ngi koy dundal muy loo xam ni ca sa wéyuréel ba léegi mu tegu sa loxo mais macha allah nga ciy bay sa waar di ko dundal dundal bu am solo ba tax na ko wootee Sénégal ak àdduna bi yëpp wuy si loolu nag teg nga sa tànk fa sa wéyjur tegoon seen tànk fa sa maam ya tegoon seen tànk di dundal lislaam di joxe mbokk mais également di taxaw ci bëgg-bëggu askan bi xam nañu ni mën naa ne histoire diine ak islam ci Sénégal ak yi Kayoor yi ci sa maam yi liggéey te ñépp seede nañu tey ci Sénégal taxawaay bi nga am pour dundal l'islam mais également dundal yoonu sa maam Sëñ Touba ba tax na kon sëriñ bi soo wootee président de la république ak gouvernement Sénégal dinañ la fekk si ndokkeel la ci mais également fekk ni seen kóllëre ak yow ndax li ngay def mooy fa sa maam bi séntu woon rek fa ñu xooloon nga xool fa ñu tegoon seen tànk nga teg sa tànk ba tax na tey mën naa ni gàmmu gàdde ya egg na tey koo xam ni mën naa ni ci juróomi gàmm yi gën a am doole ci Sénégal ak ci Thiès ki la bokk ba tax na mën naa ni ministère de di CDD di autorité administrative bu nekk ci région bi ba ci président de la ñëpp bàyyi nañ la xel defe naa ni su yabalee sama mag ji di directeur de cabinet adjoint pour mu gunge pour mu ñëw jëmmal day wane ni président de la République ci boppam moo bàyyi xel gàmmu gi mu lay feddi leen nag kóllëreen sa diggante bi moom yàlla dogal na yàgg ngeen ànd seen kóllëre lu yàgg la te ba balaa yi yëpp di xew set ngeen kóllëre bu rafet ba tey yàlla ñëw kon sëriñ bi président de la république mu ngi lay féddali kóllëre di la sant ci taxawaay taxawaay bi nga am ci diine ji ak taxawaay bi nga am ci Sénégal mais également jàpp gi nga jàpp président de la ak njabootam ak taxaw bi nga ko taxaw kon président sant na la gërëm na la mais également président wax na suñu ñëwee ñu wax ci sa kanamu mbokk yi wax la ni li nga xam ni yaa ngi ko doon mébét li nga xam ne également yaa ngi ko doon doxal askan wi muy mbokk tund wi yëpp muy yoon wi nga xam ni moo jóge Pekes jëm jéemul jaar Gàddiya sëriñ bi président de la république nee na incha allahu rabbi gàmmu 2022 suñ fiy ñëw ci goudron bu ñuul kukk la ñuy jaar incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla mottali loolu également may dalal sa xel sëriñ bi ki nga xam ne moom lañ teg mën naa ne liggéey bi ci loxoom muy directeur Ageroute jokkoo naa moom bi nga xam ni maa ngi ci yoon fan yële la ma ni waroon na ma woo sax pour confirmer ma bi nga xam ni président la république yàbbal na ma désigné ma pour ma ñëw représenter ko ci gàmmu gi pour mu jëmmal ma ni travaux yi c'est imminent mooy travaux yi li ci des bëriwul pour ñu tàmbali tëli bi PKS euh, gardien jéemul kon sëriñ bi nga dalal xelu mbokk yi li suñu mbokk mi doon wax sànq Moustapha Moustapha loolu président de la république jël na ko en charge président de la république joxe na ci instruction joxe na ci mën naa ni orientation yu leer lépp bouclé nañ ko ci les travaux sont mën naa ni imminents ku gis ni ñu tàmbalee liggéey bi ñu commencé mekkee cilmaxa ni nga ni ñu commencé décapé yenn parties yi nga xam ne dañ ko war a defaraat nga xam ne président de la république orientation yam joxe woon tàmbali lañ ko doxal kon loolu dañuy dalal xel waa gox bi yëpp xam ne loolu macha allah rabbi président la république taxaw na ci instruction yi joxe nañ ko les travaux mën naa ne sax démarré na ndax nekkee ci lu maxa tàmbali na ba pare li ci des nag mooy dugg bi te comme ni ñu wax rek incha allah rabbi fii moom incha allah rabbi bala ñu fi ñëwaat déwén ci gàmmu 2022 incha allah rabbi sëriñ bi. ci tëli bu ñuul kukk la ñuy daw ba egsi fii ñëw ziar la ñëw indil la ziaru président de la ak gouvernement bi yépp te loolu lépp nag sëriñ bi ni ngi koy defee pour taxawu say mbokk mais également taxawu bëgg-bëgg askan bi yàlla dogal na man am naa chance dajeeg yow France am naa chance dajeeg yow Amérique mais lépp l'islam ak diine lépp yoonu maam borom Touba lépp nag kóllëre ànd koog sa mbokk mu baax ma sëñ Mamour Mbacke mu sëñ Moussa te loolu lépp nag topp rek ci yoonu ak ndigal sa turono bu baax yàlla na yàlla yokk leeram tax mi si barke kon sëriñ bi dañ lay ñaanal suñu borom yàlla nañ la fi yàgg fekk yàlla na barke maam ya barke sa turandoo ba barke way juróom ba yàlla na barke boobu yëpp wàcc sa kaw wàcc gën a wàcc ci mbokk yëpp mais également di la wax ni président la république daal mu ngi lay feddali colère mais également président de la république xam na ni fii dëkku leer fii dëkku ñaan président de la république donc mu ngi bëgg sëriñ bi nga ñaanal réew mi ñaanal Sénégal jàmm ji sax te yokk mais également sëriñ bi président mu ngi ñaan nga ñaanal Sénégal élection yi ñu jëm nga ñaan yàlla defal ñu ci la ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin tey tamit li nga xam ne mbas mi wàcc àdduna bi sëriñ bi ngeen ñaan yokk ñaan yàlla wàcc mbas meeg jàmm ba mu dellu fa mu jóge woon yàlla saxal jàmm Sénégal yàlla nañ ko yàlla defal yàlla na ko yàlla defal mbokk yëpp yow asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu bokki jullit yi fekk yëpp bokki taalibe yi di jël nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Mourtada mu jottali ko gan fi nekk yëpp Serigne Mourtada Serigne bi nee na mi bala muy sore ci nuyoo sëriñ bi ñu ko jéggalu rek guddee te liggéey bi rek moo ñu ko waral ndax liggéey bi nekkoon Tuubaa ndax ginnaaw bu jant soxla lañ fa jógee waroon na dem cooy ngeen jógee fa dem kër sëriñ Moussa Baara dara ak si fii bu dul dara man maa fi waroon a njëkk waaw sama digg dëkk bi sama digg suñu Murtada waaye maa fi waroon a njëkk ndax ñëw gi ñu ñëwal Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi lu bari di nuyu mbooloo mi di leen bëggee bu baax nga xam ne ne fii këram ku fi génn kanam la keroog la démb keroog la bi muy Sëriñ Tuubaa war a taxaw liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi yépp fu ñuy defaree Sëriñ Tuubaa dara rek moom Sëriñ Muntaxa moo war a jiite mbir moomu te fii lu ñu fi def Sëriñ Tuubaa ko moom mag ñi ñoo jaayante woon ak Sëriñ Sëriñ Tuubaa jaayanteeg sëriñ bi jeex tàkk ci moom jox ko seen lépp sëriñ bi nangul leen seen lépp te ànd ba matoon sëkk rafetoon lool dara desu ca te noonu lañ ko doon dundale ba ci sëñ Mor Faaru mi borom barab bii diggam ak Cheikh Moustapha diggam ak Cheikh Bassirou dégg nañ ko ba tàyyi ñi fi nekk noonu ginnaawam itam noonu rek lañ ko rafetale Serigne Gumba rafetaloon na lool diggam ak ñu baax ñëpp seqaloon léegi rek la Serigne Mourtala am Serigne Touba daan gane fii kon loolu buñ ci dee dox ba taxawu barab bi ñëw ci loxo yi sëñ Mourtala Amar te muy sunu xarit di xaritu ñëpp waaye sëñ Mountakha bàyyi ko xel lool ba bi muy ñëw rek yóbbantewaat na ma ay kàddu yu cant ak kàddu yu seere yu rafet ci sëriñ Mourtala Amar di wax taxawaayam di wax yitteem di wax passeefam dafa xamal ma rafet ci ni muy liggéeyee ci biir taalibe yi rawatina ni mu koy ànd ak sëriñ Mamoor mu Cheikh Mamadou Mourtada xam mu koy jàppalee ci liggéey boobu kon bu loolu amee sëriñ Mourtada amul amul bis bi daje fi ay bokkam yépp daje fi ñooñu ñëpp daje fi kon sëñ Mountakha nee na bu fi mënoon na teew moo fi teewal boppam kon moom la yónni si ngir ñu wax ko Serigne Mourtala ne ko na ko nuyul gan ñi fi ñëpp nekk nekk ñëpp kon nuyoo bi ñu koy tàmbalee ci bokki boppam yii kilifa yi ma fekk jataay bi muy bokki dara manko yi ak bokki kilifa yi mbaa ko yëpp waaye muy àggale nuyoo bi. ci monsieur le ministre ak directeur cabinet ak préfet waawam ak autorité ñu àndal yépp ku lim juum waaye kon bu ñu tuddee ñi jiite délégation bi rek nar na tudd nañ ñëpp ndax maa ngi koy wax léegi préfet barki dem bu rek ñoo nekkoon jëriñ te loolu mooy wane ne yéen itam itte woon ngeen yitte bindee fi jox ngeen kilifa yi seen cër yéen a ngi bàyyi xel ci waa réew mi te loolu rek mooy li am solo suñu boroom du def dara ci hasard bu leen jiitalee ci kanam njaboot gi ngir ngeen taxaw njaboot gi moo tax kon bu njaboot gi soxlaa gis leen mel na ni yéen a ngi sàmmanteeg leen yàlla dénk booba yàlla moo leen di dimbaleel boppam kon ñu ngi leen di yóbbante ci kilifa yi ngeen bàyyi ko yépp tàmbalee ko ki ki jiite réew mi muy président Macky Sall ak ñi àndal liggéey ñëpp ak ñi mu bokkal bi ñëpp kon nuyoo bi ñu jàllale ko ci ñi ngeen àndal ci délégation bi yëpp di nuyu bokk taalibe bi yëpp bàyyi wuñ kenn sëñ Mountakha itam waxtu bu nekk. daf ñu yónni ay cant ci bokki taalibe yi ndax xam gi mu xam seen cofeel ci moom ak seen yéene ci moom waaye moom it muy feddali ko la rek ci di leen wax ne ànd ak taalibe yi liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek muy itteel xam na ne taalibe yi wuyu yi ko moom ci kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du ma guddal gannaaw dama guddee te dañoo dagg kàddu sëñ Murtada di jot lu yow sëñ bi cantaam ak ngërëm moom mu ngi ñaanal réew mi mi ngi ñaanal àdduna si yëpp waaye mi ngi am fi na kàddu yu am solo ci lii ñu nekk nii fan yii mooy li ñuy xëccoo xanaa sàkk ñu def ko ci dal def ko ci jàmm kenn ku nekk gëm ne yàlla mooy joxe mooy xañe julli bi nag sañ naa sàkku bu sàkkoo kenn ku nekk la la yàlla sedd gëmal la mooy gën ci yow nga sant yàlla dellu ci yàlla am mbir mën na laa manqué fii yàlla yàlla fa yàlla ko faneen kon bu ñu rafetalee lépp rek lépp dana yomb lépp dana baax ñu ngi nuyu ñëpp jërëjëf ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmaani كفيت كل دلل يلاه بسر لا إله إلا الله كفيت كل دلل يلاه بسر لا كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي Mustafa Mustafa Mustafa ya law salli bi la ilaha illallah salatu mu'min bi salami lahi bi sirri la ilaha la ilaha illallah البكاء والناي كل سايب يهلكك اسرب عمري قد قدا نبيلا بصحبتي سالي لا تميلا وسب سالي عدا زليلا بصحبتي أغمقي زرجول آه كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى الإيمان كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى ديماني بسم الله ناجوغتي بسم الله ناجوغتي bismillaahi naa jógati jël xalima wayati mbër mu mag mi boole ci naan Cheikhu Murtada jërëjëf bismillaahi naa jógati def le nii nu màggal Cheikh Mamadul Murtada Amar wayati wayu rëy te boole ci naan Cheikhu Murtada yaa fi def lu jar jërëjëf yaa fi wax lu jar jërëjëf yaa nu lu jar jërëjëf moo tax ñu naan la jërëjëf Cheikh Moutada yow sa baay belam na soroon naa lu rëy mu fi defoon yaay ki jëlaat wow le yoon kon danga yayoo jërëjëf Cheikh Moutada yal na la cat seexlu di wey ban mën a sax ñun di la way yow ku la way di ko may may yu rëy yu jar jërëjëf Cheikh Murtada sant nañu la buur yàlla moonu la jox def la nii nu sunu jàmbaar ji ku yàlla jox ku la doy sant ko war na la waay Cheikh Murtada yow doy nga nu ñun de doy loo nañu la yow demal ca kanam te yàlla boo gis la dem ndox fii de fii sa baay Cheikh Amar doon nga sa baay doon say mag loolu yal na la jik nga dund téeméeri at yu teg jëfal ko sa baay Cheikh Moutada def la niru màggal sunu jàmbaar ji albaari jox na la baax yaa doon sëriñ moor may borom baax Cheikh Moutada baaxal yaa mën a baaxal ginaan yaa fi sa baay Cheikh Moutada ker gu sedd nga yow de yaa baax ci gaa yi télé te ñun de ñooy ñi télé ràññee la war nanu waay Cheikh Moutada Amar doon nga sa baay ba lu say mag loolu yal na la jik nga dund téeméeri at ñu teg jëfal ko sa baay sa baay ba am na ci baayam cër bu kenn kawewul yaa doonu cër ba ca moom ak bi nga am ci sa baay Cheikh Murtada yaa man a roy di roy ba toll ni sa baay Cheikh yaa man a roy di roy ba mel ni sa waaye di roy ba nonu sa baay yal nañ fi amiin yal nañ fi sax amiin te sa doom yu baax nga am ak mbokk yeeg taalibeeg soppeeku toppoon sa baay yal nañ fi amiin te sa xaaleeg doomi baax yi nga am ak mbokki ak taalibe ak soppeeku toppoon sa baay euh, jërëjëf Serigne Cheikh nga jéggal nu ci tàmbal gi sax te ñëwoo ndax yaa war a ubbi jataay bi yaa ko war a tëj ndax yaa fi teewal xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha te yàlla dogal na seen diggante ngeen mën a ànd waaye àndu leen ci nag mooy sa nijaay nga ànd ak moom ci ne ko may taalibe bi yaay sëriñ bi looloo tax mu ñeme la nu jaxasoo ci liggéey lu bari ci këram may wax jokkoon ak Cheikh rek Cheikh jokkoon ak Moutala loolu mbir mbirum loolu loolu seen mbir la koy wax waxtu wu ne moom nag waxoon naa ko ci kanam sëñ Cheikh ne ko sëriñ bi dama bëgg ñu sakkanal la di ko defee niñ ko mane tam ban koo defee ni nu ko bëggee waaye ñoom du ñu sonn du ñu sonn yërmande rek a tax ñuy wax waaye du ñu sonn sëñ Moutada daan na wax ne coono yi nit ñi wax sax bu naafilaa rek duutuñu ko yëg waaye sëriñ Muntaxa it lu mu sonn sonn bu gisee raj raji taalibe yi rek coono bi jeex ndax yërmande ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla bàyyi ko fi te wëral ko ba naan yi mu sumb ak yeneen yàlla may ko mu yeggale yépp ba sos yeneen ndax fi mu jëm bi mu toggee xalif général bu de Mouride dañuy waxtaan ma ne ko man de bi nga toggee nekk xalif général de Mouride dafa mel ne dañ ma laaj dañ la laaj ne foo jëm nga ne inni ilal ilmi wal amali zo arabi man daal maa ngi jëm ci xam ak jëfe xam-xam mu ci naal wu toll ne wii mu ci naal njiitu taxaw xool ko kañ ko gis ku def lu mel nii waaye nag ku ànd ak kuy daw fokk nga daw li man yasulu ma aljara ku bëgg àgg da ànd ak kuy daw waaye Cheikh Mouhamadul Muntaxa nag duxut ngir raw kenn doxulit ngir double kenn dafa xam ne dox da koo war muy dox ndax xam na ne ku fi nekk daa am loo war a def ci cadre boobu lay doxe waaye doxul ngir jiitu kenn waaye xam na ne war naa dox daal lu ñu dox yal yàlla may ko mu àgg te àggale kon Serigne Cheikh Touba gépp bu ñëwoon du doy waaye boo ñëwee xalif général de Mouride yónni la Touba gépp ñëw na ndax boo demoon Touba kër goo taxaw ca bunt kër ga boo nee ana sëriñ bi ñu ne la mu ngi ci biir nga yàgg ci sëriñ ba ne ko damaa bëggoon a yàgg ci sëriñ ba mun a yóbbu leen ko ci sëñ Muntaqa <laughs> loolu la yàlla dogal ci yoon wi kon boo ñëwee ñépp ñëw na waaye cant nag. ne ko moom lañ fi amee ak i ngërëm waaye duñu xarab duñu weddi ndax liñ nu jox xam nañ tum ko jëlee te kan ko joxit xam nañ la mu ca daj ba mu ko daataan am damay wax ne cër bu ko borom wutee ci toroxlu ba téye ko ku mu ko jox bur ngande woyof loolu noonu la ko defee kon nu it noonu rek lañ ko mën a defee yal na yàlla sàmm ko te aar ci dara jëy Cheikhul bu loolu jàllee di sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa moom mi nu may nu toogoon fii ñaan yàlla may nu nu fekkiwaat ko ndax dañu ne ñaan soo ko defee yàlla may la nga toogaat fa nga toogoon ñaanaat ñaan ga nangu na dañu ne mook aw sànn ñoo yem fekk déggoo kàng wala butt dalagul ci dara may rafetlu kàddu yi fiy jaar yépp tàmbalee ci maam Thierno mi ubbi Serigne Moustapha Kane nag moom ca Texas Serigne Khadim mi wax ci turu njaboot gi dalal gan ñi ak xaadim bi doon wax ci loolu comité d'organisation bi ak sëriñ benn mi nga xam ne moo mujj jël kàddu ci lu mel noonu may wax ni nañu ñu ñaanalal sunu way jur yi fi jóge ak suñu kilifa yii fi jóge bu yàggul boo tàmbalee ci sëriñ amatu Dior mi njëkk a dem teg ci sëriñ Gumba Miyew ba ci sëriñ amatu Matu ak sama mag yu baax ja sëriñ Fallou Amar damay wax ni man maa ngi fi te maa ngi jàng alquran li ma man maa ngi julli ci yonent bi lu ma man kon nañuy ñaanal ñoo ñi fi nekkatul ndax ñooñu ku leen fàtte diir bu gàtt boo lu gisatul fàtte la moo tax ñaan yi mu bëgg ñu di ko delloo ñooñu moo tax démb mu le ministre dañuy jàng ay kaamil ci gox yi ci biir réew mi yépp daara jënd ci dëkk bi di ko jàng gi ne gumba di ko neng njukki di ko jàng dëkk yooyu yépp ak daara yu nekk ci Touba bu ñu dajalee lim bi nag fii ci jumaa ji ci takkusaanu àjjuma ci lañ koy tëj ñaanal mag ñi dëkke woon barab bi ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm ñaan mbas mi nga xam ne moo fi duggoon te ba léegi ñu koy tudd yàlla jeexal ko ndax li mu gàllankoor ci réew mi ak doxinu réew mi ak économie réew bi ak àdduna bi sax bari na day mel ni ku ci dul ñaan yëg a góoli xew te lu lu mat a bàyyi xel la bu loolu jàllee may wax ni sant yàlla war na ndax temporaire ak spirituel ñoo am ndax ñaar ñooñu yépp ci nit ñi lañuy liggéey kon su kilifa diine yépp dañuy fii tey ñu bokk waxtaane li nu bokk ñu dem ba jant bi so njiitu réew mi tànn délégation bu mu wóolu ne leen kaay leen ngeen demal ma gàdd yel seeti sëñ Motoda ak la famille Darmanko ak taalibe yi ak bokk yi ah loolu damay wax ni man daal la in shakartum la azidannakum yàlla nee na bu ngeen santee ma dolli waaye maa ngi sant yàlla te yaakaar ndolli waaye wala in kafartum nag duma ca dugg ndax dafa amalul njëriñ te ñi ca nekk maa ngi ñaan yàlla yàlla génne leen ci parce que weddi baaxul dañu la weddi kufru la ndax dañu suma kafaru suma amanu suma sdadu kufran booy def njaw booy def njaaxum rek ñu wax la nga ne maa ngi jéggulu bu subaa nga defaat njaaxum ñu wax ne maa ngi déggulu nee na kéeféer lay doon la ci yow wedd lay doon kon fii sant moo fi am ak ñaan ndax addu'a silaaxul mu'min ñaan mooy nganaayu jullit te ñun dañu ko gën ndax ku am juróom-ñeent fukki juróom-ñeent te boo ko ci woo mu wii la bëgg na ko wax ak moom damay wax ne rekk réew mi nu yàlla jox nu bokk ko am nañu njiitu réewam bu président Macky waaye kenn ku nekk na jàpp ne am na wàll woo xam ne président Macky Sall mënu ko ko defal moo ko mën a defal boppam mooy sàmm gi ak aar gi ak taxaw gi ku ne am nga ci wàll te jàmm ku ko yàlla jox yàlla na nga ko xam ndax ku ko yor bala ngay xam njëriñul jàmm da koy ñàkk yàlla na loolu umb ko defee di rafetal kàddu yi jëflinte bi ñu koy rafetal dana tax nu mën a àgg fa ñu jëm te tiraillement ak xëccoo du njariñ ci réew yàlla moo wax ne wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum nee na waxtu wu tiraillement duggee ci seen biir ak xëccoo ku ne na maay doon lii ku ne na maay doon lii nee na fa muy mujj da ngeen di échec ñàkk intérêt yi taxoon ngeen di ko xëccoo alxuraan na ko wax kon lii nu dëgmal mu di ay élection muy gox goxaan yi démb rek candidat yi fi ñëw nee naa leen yéen a bokk dëkk ci tund wi ku fi ñaawal sa kàddu kenn du la woteel ku fi wax loo wër wax kenn du la woteel sàmm leen seenu bokk nit ñi xool ki leen doy ñu jiital ko te am ci moom yaakaar waaye fii nu dëkk ci suñu gox bii yaakaar naa ne ñi fi nekk ca di ay candidat xam nañ ni ñun am nañu nit gu toll ni ku fi xaste wala ngay sàpp wala ngay xuloo ñun duñu mën a ànd yow ndax dañoo fonk suñu ay wayjur te Maulana Cheikh Mouhamadou Mourtada mas na ma wax ne ma mbaa yëg ni dina am ko saaga wayjuram te yëgul ne moo ko saaga ma ne ko loolu nu muy mën a amee mu ne xanaa jàngoo wala tasubu allazina yad'una min dunillah fa bi gayri ilmin ki gëmul yàlla boo saagaa yàllaam ji mu gëmul mu saaga yàlla ji nga gëm kon rawatina nga saaga wayjuru jaamoom bu saaga sa wayjur kon saaga sa wayjur saagawu ko te nit ñi war nañoo fexe bay joxe li ñu am dañ ne fàqidu shay'in la yu'ti nit mënut a joxe lu mu xam lu mu amul koo dégg muy saaga saaga la am koo bii muy joxe xaalis daa am xaalis koo gis muy joxe xam-xam daa am xam-xam. koo joxe mooy ay nasiha dafa laabiir waaye na ngeen bàyyi xel na lu waay di joxe na leen nit na la nit ña xool ba xam ne lii ngay joxe moom nga am ndax faaqidu shay'in laa yu'ti nit mënta joxe kon rafetal ànd bi rek ak bokk fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun ñi gëm ñoom ay frère lañu ay bokk lañu foo fekk ñi gëm ay bokk lañ kuréel bu ne ña gëm ay xarit lañu ak ña ca des ma jox la ci misaal léeg-léeg nga dégg Moustapha Kane moom nangu ay doomu ndey lañu tam bokkuñu parti mais dañoo bokk ngëm lu ñu gëm moo tax ñu mën a nekk ay frère te yàlla daf ne ñi gëm ay frère lañu waxu tuddul ñi gëmut parce que mënuñu doon ay frères ma wax ni kon fii nu nekk muy Sénégal am na lu fi yàlla feeñal bu nu yàlla mayee dal toppatoo xam-xam jaar ko fi nu ko war a jaar dana mën a àgg si ci nen ñun ñépp nu bokk jëriñoo waaye dafa am loo xam ne yet du tax nga jot ci xuloo du tax nga jot ci xam ay tax nga jot ci ak dalay tax nga jot ci jàmmay tax nga jot ci te mbell bii nekk ci suuf bi ci mag ñi ñaan lu ne ñu ko ci ñaan ba yàlla dogal ñu ne tey jii nag ñu jublu ci jëriñoo ko na leen wóor ne lu ci indi cat mooy luy wax lu indi musiba waaye na leen wóor ne lu koy sàmm mooy fexe ba jàmm am te jàmm das koy sàkku yàlla dimbali la ci réew mi nag ñun amatuñu problème ndax sëñ Touba am na lu mu ñu jàngaloon te loolu la ñuy tere man bu ma jàngee xas xasidaam ba yàgg damay yéemu ndax koo xam ne parawaaroon na ba mu fi jógee léegi ne mën na dem ba dem ba àdduna ay nit génn di ko saaga man bu sëñ Tuubaa waxee loolu ma jàng ko damay yéemu te moo toog ba yàgg mu ne fa kullu man chattamani awlaama fa hablahu tawbata wa istislaama fa kullu man aza azannahu bi rabbiya mais xoolal loolu loolu ku wayoon sunu maam yi wax leen ne leen lii dana am duñ ko gëm sëñ Tuubaa ne ku ngeen dégg mu saaga ma jamono ngi ñëw am na ñooñu lañu am lool la ñuy joxe du ñu ma jox àddiya duñ wax sama baax ñu wax sama lu rafet ay saaga lañu am moom lañ may affecté waaye ku ngeen dégg mu wax loolu fa hab lahu tawbata wa istislaama yàlla yàlla jéggal ko te may ko jàmm xoolal ko yàlla yàlla jéggal ko yàlla yàlla may ko ak jàmm mu ne fa kunu man aza aza na ubiya waxuma la sax saaga waaye ku sa njort rafet ci man ba waxtu wala yaa ngi xool looy sikkal ci man yàlla yàlla na nga ko wëlbatil xelam mu bañ a xalaati noonu parce que nekkuma foofu dëgg la kon nañu rafetal soow mi pour man ci dem marché ndax li na ci xol yi dañu ko war a defar ndax wax naa démb rek ci jàkk génne leen isti julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am solo am na lu ñuy tudde azikru bil qalbi bi lisaan azikru bi lisaan mooy baati alfaas yi ngeen di tudd subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah loolu mooy werd ci sa gémmiñ waaye am na azikr bil bi am na werd ci sa xol loolu mooy lan tafkiir fi malakuti samawati wal ardi di xalaat yàlla ak li mu bind ak ñi mu ko bindee asamaan ak suuf ak ya ca aju loolu xeetu werd la danga ciy taxaw ba yàgg nga yëg nen yaa ngi fii waaye nekkatoo fi yaa nga fële léeg nit ñu wax ak yow sax fekk ne yow muy waxal bu ngeen toogaatoon ñaari waxtu bu lu seen la maa la waxoon nangam ak nga ne ko masuma wax lu mel noonu araam masoo ma ko wax fekk kaana hunna wa ba nekkoon na fi waaye dem na mu amaat lu ñuy tuddee azikru bil jawaarih sikkar ci ay cër mooy rabtul aada an jamii il maniyat feex ba yeew say cër ci lépp lu yàlla xaraamal loolu xeetu sikkar la boo yaree tànk bi ba duutu teg tànkam ci fu naqar yàlla rek yaa ngi ci sikkar boobu boo ci amee benn nag te amoo ñett yépp léeg-léeg nga waaye nag ku am kilifa du am problème te yàlla jox nañu ay kilifa yu baax muy magu diine yi nekk ci réew mi te sonn lool ci diine yàlla na yàlla fayal nu leen kon yaa ngi wax bind naa bu baax monsieur le ministre. ndax yow bu la yàlla dogalee président Macky Sall def la ministre wóolu la yebal la gardien nga xam ne bi nu gisante rek fàttaliku na lu bëree bëree bëree te am na ci loo xam sax duma la ko xaw nëbb ndax Cheikh Sidil Maxtaar Kunta bi mu fi jóge léegi daf ma ne mbaa xam nga ne sa goro goroy ñëw ma ne kon yaa nga ba mu ne waaw mu ne ma ñun kat man kat fi ma lay toggale añ boo ñëwee Cees kooku mooy mooy yaay soxnaam <laughs> soxna Sofia ma ko kon loolu xamoon naa yaa ba ma jaxasoo woon na ñu soxna Sofia waaye nag mosuma ñu yegg ak ci wax ji noonu kon ñëw nga sa kër c'est le directeur cabinet adjoint maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ndax yow dangay kenn ci nun taqoog nun bokk nun bëgg nu lool te kat nit loo ko téye mu xam ko xam naa ne téye ngeen bu baax a baax ndax bari na ñoo xam ne seet njot yombut waaye moom bu nekkul ci liggéeyu président bu sañoon ñu toog nuyu waxtaan naan ataaya waaye nag dama ko noppal ndax xam naa ne la muy liggéey lam ci mën a boole nit bariwul ci jot waaye nag bëgg-bëggam ak cofeelam dana ko def ba mu mat sëkk ci noonu kon dema ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal nag président de la république ndax ku Sénégal ku ñu yenn Sénégal yenn nañ loolu diis ndax nit ñi yor kër sax am nañu problème kër rekk ñi ko yor am nañu problème diggante la xorom seeg dëwlin jéeg saako ceeb ba jeex na képp ñi yor kër am nañ problème kon ku yor réew da am problème waaye nag yàlla na ko ñaan lal te yàlla ku mu yan moo lay téeñal ku mu yan moo lay téeñal suñ ca boolee nag ne ko dañ la dénk CEDEAO booleel na ko ci nga daldi di yoraat beneen yan yan yooyu yëpp yàlla na yàlla woyofal ko union africaine kooku yàlla na yàlla woyofal ko ndax loolu itam ab yan la kon bu ma leen nuyoo sant leen gërëm leen monsieur le préfet waxoon naa li ma wax ci yow yow suñu xarit nga suñu mbokk nga suñu wëllëre nga ndax danga bàyyi xel askan wi mosuma la woo mukk jotuma la moom cinq yi te woote te loolu mooy jege askan te nit ku ko jegewul doo xam soxla di nuyu bu baax sama xarit yi fi nekk monsieur le euh, sous-préfet maa ngi lay nuyu yow itam di la nuyu yàgg sa action yi ñoom benn jaaroon nañ ci jërul ma ci dellusi si du du Sarr ñaar directeur bi maa ngi koy nuyu moom itam di xam ne suñu xarit la suñu wëllëre la euh, ku xam Cheikh Haya xalif général Qadiriya xam xam doo du Sarr ndax mooy xaritam mooy taalibeem mooy léppam bu ko defee nag sëriñ bi nu wax na ne la sëriñ xaadim mi ngi fi toog bu Cheikh ak bu sëriñ Ibnu Omar suñu mag bi nekk yu jéemul mi ngi fi ak sëñ maam ma amam ñoom waa kër Baye Sëñ May mbokki daal ko yëpp ngi fi nekk li tax ñoom ñaareel bu ñu toogee sax du ñu lim mooy kenn ku ne mooy moroom ma rek kenn ku ne mooy moroom ma rek moo tax ñoom du leen lim waaye pour wan na ne taalibe yaa ngi fi bokk yaa ngi fi xarit yaa ngi fi kilifa diine yi fi ñëw yépp limal nañ leen ko waaye nag mënuma bañ a ba mënuma bàyyi xel bañ a tudd taalibe yi ndax bokk yi def nañ li def lépp jàng nañu alxuraan def nañu lépp taalibe yi nekk itam fi mu mane fépp def nañ ko biram wax na ko léegi dawaay yi ci biir réew mi ak yi ci biti réew mi te xale yi dañu xaw a na ne léegi njàng mi leen na yóbbu ci aw doxalin yu bees am na lu ñuy tuddee ansaaru gardien li taawuni alal birri wa taqwa moom mu ngi ci diaspora bi fu ne témb rek lay ñëw indi ci jàkk ji fii xaalis boo xam ne dañ ne nañ seet lu ci askan wi bëgg rek ñu def ko am na fi ñoo xam ne yëpp ansaaru gàtt yam na waaye ñoom ñoo nekk ci biir réewum Sénégal gii ñooñu itam seen taxawaay dañuy dawal ba néew ne lii la mu indi sëñ bi nañ ko defal askan wi foo ko fu jàpp ne fa la baax ci ñoom am na lu ñuy tudde ansaaru am na lu ñuy tudde gàdd yàlla bokk nga xam ne ay tuut tànk la ñoom dañuy jël benn affaire sànni ko gàdd yàlla bokk nga dem ba yàgg nga gis ci mbooloo moo xam ne koy doon gardien laa bokk ay tout tànk dañuy dajale seen alal ba sëñ bi lii defal na ko ci gàdd loolu nag dañ koy def ci biir dëkk bi amaat dawaa ir yi nag lu mel ne xidmatul xadim ansaaru diin nga xam ne ñoo tasaaroo ci biir réew mi biti réew mi loolu moom moom mënu ko dañ koy yóbbul Serigne Touba ñoo ko moom mu jox leen ko kon loolu maa ngi leen di seetal ni dëkk bi tënk na ci loolu taalibe yi li ñuy def ñu ngi koy def mbokk yi li ñu war a def ñu ngi koy def xarit yi li ñu war a def ñu ngi koy def waaye monsieur le ministre tey day indi nga sëriñ ca boo xam na nit ñi bu ñu tëddee danañ nelaw te danañu ñaanal président de la république ndax lii dañ ko doon séentu defar yoon wi ba mu ñëwul jóge gàddu yam jëm jéem continuer jëm ca loolu day ab sëriñ ca bu ni toll sëñ Cheikh neen sëñ Mouhamadou Mountakha yoon wi de lu mu ñëwee dina ñëw gàddu yéen man de pax yi laa doon doon waaye bu ñuulee na sëriñ Bachir dafa ñëw fii ci kër gi de dana ko def incha allah maa ngi ñaan yàlla nañ bu ñuul fekki ko ba nga a dawal sa oto bi bu jiitu mu topp ci yow rek nga ne sëñ bi agsi na kon ñu ngi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. dafa am nag ay gars yoo xam ne dañ feeñoo moom ci dëkk bi seen pas-pas togg rek ak andi joxe muy seen liggéey danañ dugg ci dëkk bi ba génn du ne muye nit du ne yittewoo xam kenn dajale seen alal ñu togg joxe rek ngir jëm yàlla ci lañ fi nekk loo gis nag monsieur le ministre ci ndan tant bi yëpp yooyu ma tudd lii taalibe yi ci dëkk bee ko tàmbaloon benn taalib bi bu nekk ci biir dëkk bi mu ne bàyyi leen ma ma àggale ko leneen loo fa gis it ñoo ko def daara jiit dëkk bee ko tàmbaloon benn taalib bi bu ne ci dëkk bi moo ne bàyyi leen ma àggale ko waaye fii nag du ñu jàmbat du ñu xuloo du ñu yuuxu du ñu xaacoo dañuy tàllal suñu loxo rek xam na lu état man dana ko def sëñ Moutawaa nag dama mës a ànd ak moom dajeeg ay nit ñuy gërëw coow yu bari ñu arrêté oto mu ne ma laaj leen lu xew mu ñu ne ko noonu dañuy gërëw suñuy droit la ñuy laaj ah kon da ngeen a bokk ci ñi yaay laaj jàpp ne am na ku leen mën a dimbali ku dul suñu borom waaw ko laaj suñu borom rek bu gënee ci yéen ko jox ñun ci foofu la ñu nekk luñ soxla danañ ko laaj yàlla waaye lu ñu mënut danañ leen ko yëgal. xam naa ni sax gëmmu leen ndax am ngeen ñu ci nekkal te ñu ngi leen di wax indi xabaar bii ñii fi nekk leeral nañ nga ne réew mi soxla nañ ko bi andi nga ñu xabaar boo xam ne mën nañ ci jàpp ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla na ko yàlla fekkeloo ba déwén ak jàmm yàlla na yàlla may nu ñëpp dem ak jàmm te bu kenn def waaye nag boo xoolee situation courant bi ni mu mel dafa ku ñuy wax Pam Moussa Thiam doomu góor gi dem Demba Thiam moo nekk délégué régional ci Thiès bu Sénélec bi mu ñëwee fii ba ñu def ba xool ko dane duma toog mukk jekki ba ay kilifa ñëw fii dëkk bi mel nii mu mel te ñu jox ma nekk ci région bi li fi manque lépp moo ñëw wuti ko ñëw def ko ne xam naa ne lii may def ñi fi ñëw danañ xam ne loolu laa war a def ñi ko samay kilifa yi ci kaw danañ xam ne loolu laa war a def def. loolu nag day mel ne la sëñ Cheikh Mbacke waxoon rek maa ne woon dinaa fi ñëw ñëw naa fi asalaamaaleykum wa rahmatullah.